salut les amis C'est le samedi 13 février 2021 ziar naa leen bu baax a baax dal podcast Wolof Tech bi de di jox plus lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu Kalama ci wolof. alors épisode bi passé nak la paré premier première partie saison 4 bi manam partie développement Tay parlé dañuy tambali deuxième partie bi pour waxtan si. naka la deuxième organiser ligue bi nga ni lañuy la def ci entreprise informatique alors ci épisode bi nag épisode tey bi dinañu waxtaan ci lu ñuy woowee les méthodes agiles maanaam ay doxalin yu am solo pour que liggéey di gën a efficace ci entreprise bi donc euh, dañuy waxtaan ci lan mooy méthode agile lu tax ñu war a utiliser méthode yooyu ci liggéey bi naka lañu ko créer méthode agile boobu noonu naka lay doxee mais aussi yan jumtukaay moo ñu permettre ñu mën a doxal méthode yooyu noonu ci suñu entreprise alors comme ni koy defee nag ci épisode yépp pour waxtaan ci sujet bi dinañu ci ànd ak benn expert ci wàll wi tey nag ñu ngi dalal Mouhamadou Mansour Dramé coach agile agile la maanaam day tàggat ay nit ci lépp lu jëm ci wàllu agilité Mouhamadou ziar nañ la wala Mouhamadou Mansour ziar nañ la. <laughs> maa ngi ziar bu baax aussi El Hadj Ibrahima di la di la nuyu di nuyu ñi ñuy déglu yëpp. ok alors yow yaay euh, coach agile bi tey quoi yow yaa expliqué expliquer le mooy agilité et tout ce qui est scrum tout tout tout d'accord. <laughs> Hum, hum, hum, incha allah incha allah dinañ jéem. <laughs> alors alors alors tu sais bi may bi may bi may commencer di euh, di préparer épisode bi euh, sama xel dafa nek ci ben affaire à chaque fois sama dafa xel lay nek ci loolu quoi Manam dama doon xool naka la mën méthode agile yi naka laa ko mën utiliser ci man production sama podcast Wolof Tech bi quoi parce que bo xoolee man damay préparer épisode yi.

Euh, di nga expliquer li à travers ces explications je pense que dina gëna xol nak la laa mën utiliser méthode yoy non ci voilà ci li may def parce que ay livrable lay joxe ah, épisode ay livrable n'est-ce pas. <laughs> Mhm, tout à fait tout à fait. lu leer la effectivement maa mang maa la ci gërëm en même temps di la gërëm vraiment ci invitation bi ma bi ma def ci honneur bi ma def ci participer ci cette émission bi nga xam ni maa la ci remercier bu baax aussi vraiment. Euh, ndax yaa ngi yaa ngi jàppale ñu bëri ñoo xamante ni tamit bëgg nañu am ci xam-xam te dafa dafa nekk loo xamante ne nii dafa nekk à la mode te dafay jëriñ ñëpp donc euh, maanaam le fait de quoi vraiment donc euh, sant yàlla en tout cas méthode agile li nga ma léegi nii yëpp mën naa wax ni sax pour le moment mën naa la mën naa la wax ni du ma la indil dara de plus c'est-à-dire que def nga mhm. presque lépp li ngay soxla mhm. ci mën a Euh, def li ñuy wax produit de la valeur c'est-à-dire ngay def est-ce que amal na njëriñ ki nga xam ni moo nekk à la fin ki nga koy defal est-ce que amal na ko njëriñ donc ni nga ci ni nga ci ni ngay démarrer ni nga xamee exactement lan nga war a def ci ban waxtu euh, boo mhm. paree lan moo ci war a topp te bu ci toppee tamit taxaw nga xoolaat li nga mhm. war a def lan laa ci lan moo ci def lu baax lan laa ci mën a yokk pour mu gën a baax ba pare nga mhm. li nga ci jël yoon yëpp nga pratique ko encore pour mu jox la lu lu lu gën a jëmal kanam donc lu xam xamante ne dina gën a njëriñ nit yi te te loolu mooy euh, essentiel méthode agile. non je pense que je pense que déjà épisode bi commencé gul mais sama xel dal na ba pare <laughs> sama xel dal na ba pare. alors ñu dem directement ci épisode bi maanaam épisode tey bi c'est-à-dire agile et si on travaillait ensemble Manam, su nous booloo liggéey ci projet loxo ak loxo mbagg ak mbagg naka lay demee. alors la première partie saison 4 bi waxtaan nañu ci développe ci walu développement informatique Manam langage de programmation yi ñi utiliser pour defar ay site web ay application mobile ak yeneen ak yeneen ak yeneen alors soo nekkee nag ci euh, benn entreprise bu mag wala wala bu ndaw wala startup ak yu demee noonu ngeen am benn projet pour defar benn application pour benn client wala sax pour entreprise bi ci boppam le plus souvent ñu bari ñooy liggéey ci projet boobu noonu donc fokk ñu am benn doxalin boo xamante ni mooy tax ñu gën a efficace ci liggéey bi alors ci doxalin yooyu nag ñu am benn boo xamante ni moo gën a fës c'est-à-dire dañ ko ràññee mu nekk les méthodes agiles alors Mansour lan mooy agilité ci biir entreprise bi nga xamante ni day produire ay applications wala ay site web wala yu demee noonu. alors agilité ci biir entreprise euh, boo ma ko laajee mën naa la wax ni même bu ma. bu mu dul wax d'abord entreprise informatique damay wax agilité ci biir entreprise en général parce que bala ngay wax informatique léegi fi ñu toll nii jamono ji hmm. agilité ci entreprise la ñuy wax yëpp quel que soit lu entreprise bi di def lu tax ndaxte ci biir agilité da nga am ay méthode ci biir agilité boo na bay wax agilité sax mën nga wax méthodologie xam nga différence entre hmm. méthodologie ak méthode nit ñu duñ ko def souvent mais méthodologie moo gën a kawe tuuti méthode léegi méthode yi nag méthodologie agile dafa am plusieurs méthodes ci biir. Mhm. ci dinañ ci dinañ ci gën a ñëw ci ci kanam. defe naa ci yenn question exactement maintenant ci biir entreprise bu ñuy wax maintenant agilité euh, ci biir entreprise c'est en fait capacité wu nit ñi ñiy liggéeyandoo ensemble à comme ni nga ko waxee sànq ci bi ngay bi ngay bi ngay tàmbali. Mhm. def loo xam dafa amal njëriñ client bi maanaam livrer de la valeur au client la valeur mooy li nga xamante ne nii amal na njëriñ nit ki. Hmm. loo xamante ne nii amalul njëriñ mooy amul valeur loolu xam nañ donc booy wax entreprise agilité ci biir entreprise mooy capacité à ce que ñëpp ñi liggéey ensemble bu benn waxtu pile jotee. maanaam ñu ne tak tey jii lii moo am bu ñu bëggee client bi kontaan. wala client bi euh, nu mu ci dab bànneexu client bi. Hmm. ñun ñëpp war nañ mën a def de telle sorte que. Hmm. ñu jox ko lii. ok donc capacité boobu ñu am à que bu affaire bi jëmee rek waxtu bi bu jotee rek. Hmm. ñun ñëpp ñu boolandoo suñu doole liggéeyandoo ba jox client bi li nga xamante ne nii dinañ gis ay bëñam maanaam kontaan. kontaan quoi donc loolu mooy un organisation globale ci entreprise maintenant entreprise informatique boo ci buggee dugg. dafa indi. li ñuy wax software. Mhm. li ñuy wax hardware. Mhm. mu ngi ci biir c'est-à-dire que yamul rek ci développer loo xamante ne ni moom la ñu tuddee logiciel. Mhm. mais li nga xamante ne ni matériel la donc côté infra. Euh, donc infrastructure souvent. donc lépp luy xaaj maanaam li nga xamante ne nii matériel bi ngay utiliser la comme sama ordinateur comme leneen. loolu yëpp mu ngi ci biir maanaam bu comme bu ñu jëlee kaw Covid bi Covid bi ñëw. entreprise yi nan la def ba nga xamante nii ñëpp mën a daw dem télétravail. donc il faut que euh, entreprise qui a fait affaire informatique gor gor ba ba logiciel yi fonctionné. Mhm. ba ordinateur yi doy. Mhm. ba nit yi am internet loolu yëpp ci la bokk ci capacité bi ñu am à rapidement répondre euh, ci ci besoin pour que client bi satisfait. ok ok voilà ok là c'est là c'est très clair euh, ni nga expliquer méthode agile déjà déjà dans le cadre général bu nekkul même sax ci entreprise informatique ni ko expliquer dans le cadre général ak aussi naka lay euh, explication bi nga joxe ci entreprise bi parce que loolu sax amoon beneen question la woon ci biir mais déjà euh, leeralal nga ñu loolu déjà alors su fekkee juumuma je pense que agilité euh, ñu ngi ko commencé introduire je pense vers les années 90 juste pour juste bu fekkee mais avant ça entreprise yi aussi ñoo ngi doon defar ay logiciels c'est-à-dire ñoo ngi doon am ay projets yu mag di produire ay logiciels wala di defar yu demee alors li ma bëgg xam foofu mooy avant agilité yan méthode de travail moo amoon ak lan moo ci sooxe ba tax ñu créer les méthodologies agiles comme ni nga hmm. alors avant effectivement li nga wax dëgg la année 90 euh, dix boobu la ñëwee ci année quatre-vingt-dix yi ba jur euh, deux mille li wax le manifeste agile. ok dinaa ci ñëwaat. Mm-hmm. maintenant balaa manifeste agile boobu di ñëw ci 2001. Mm-hmm. Euh, nan lañ doon def ci côté développement logiciel comme méthode de travail pour liggéey ci côté informatique. il y avait li liñ doon wax le plus souvent li ñëpp xam sax presque moom la ñuy jàng sax même école pour ñuy jàng mm-hmm. gestion de projet. il y avait le cycle en V. fekk cycle en V moom la ñuy wax parfois aussi waterflow. ou bien méthode en cascade donc méthode boobu mooy méthode bi gënoon bi ñu doon utiliser mais du mom kese moo existé woon amoon na méthode ay méthode XP mooy extreme programming extreme programming sax pour mën am voilà dina am temps dugg ci mm. wala wala de on verra mais amoon na yeneen méthode il faut comprendre que mm-hmm. amoon na méthode yu bari yu nekkoon yu nit ñi doon utiliser mm-hmm. mais bi gënoon a fës mm. mooy cycle en V cycle en V hein. cycle en V ok voilà cycle en V donc cycle en V maanaam lu muy laajte besoin dafay ñëw maanaam client bi dafa am lu mu bëgg euh, client bi mën na nekk ci biir entreprise buy développé affaire informatique dañ jàpp ni client bi. Mhm. Euh, war nañ ko mën a defaral lii. donc souvent li ñu organiser wu mooy dafa am li nga xam ne équipe bi nga xam dafay développé. Mhm. ak équipe bi nga xam te ni mooy indi ay besoin wu client maanaam dafay identifier ni lii buñ ko defoon dina baax pour client yi ainsi de suite mu ñëw indi. Mhm. pour équipe bi war développé ñëw développé. donc liñ ñu doon wax souvent MOA ak MOE maanaam ki nga xam ni mooy indi kii bi ak ki nga xam ni mooy jàpp comme manœuvre yi. Mhm. liggéey ci biir pour euh, tabax dara ba mu ba mu taxaw comme kër. ok euh, maintenant méthode boobu lan moo doon euh, problème am. le mhm. plus souvent li tax ba ñu agsi ci. Mhm. ci ci méthode agile. c'est que il faut que ñu xam client bi li mu bëgg exactement lan la. ok donc client bi dafay ñëw. indi bëgg-bëgg bu leer c'est-à-dire ki nekk ci biir entreprise bi sax équipe bi nga xam ne mooy indi besoin client dafa war a indi bëgg dafa war a indi bëgg-bëgg bu leer mais soxla bii la ñu am ñii mhm. lañ ko bëggee ñii lañ ko bëggee ñii lañ ko bëggee bu leer nañ mhm. maintenant nag ñi war a ñëw defar affaire yi ñëw sëgg ci bii bi mhm. par rapport ak liñ ko jox commencé di liggéey liggéey ci biir ba génnee dara ñoo présenté ko ne ah li nga bëggoon nag nii nga ñu ko waxee nii nga ko bëggee. Mhm. defal nañ la ko mu ngi nii. mu ngi nii ok. voilà maintenant pour pour pour ñëw ci li tax. Mhm. Euh, euh, euh, méthode agile finalement. parce mhm. que dañu rendre compte. te xam nga monde bi ni muy développé maanaam chaque fois dañuy bon ci ñi gën a ci seen ci ñi seen xam-xam gën a màcc ñi gën a avancé. ci ci ci ci yenn yenn domaines yi. dañuy mesurer c'est-à-dire que dañuy natt chaque fois def nga dara. nga taxaw nga natt comme li nga wax au début. Mhm. def nga épisode. Mhm. programme nga def nga lii ak lii bi nga paree natt nga xool nit ñi nan la ñu jotee épisode bi est-ce que kontaan nañ ci nan lañ ko dundee est-ce que amal na leen njëriñ. ok ok ci noonu voilà dafa am ay sociétés yu ñëw di def ay enquête xool euh, ba xool ni que méthode cycle en V bii ñu doon utiliser bu ñu xoolee ba xool li ci baax bëriwul. maanaam. Euh, bu ñu xoolee sax am na ay chiffres yu ñu génne pour bañ a gën a dugg ci détail yooyu noonu ay chiffres yu génne daal yu wane ni euh, di arrêté ci biir yoon bi cest dugg commencé di liggéey njëkk liggéey amul njëriñ. parce que client bi li yaakaaroon ni dina ko amal njëriñ finalement amul njëriñ comme nga démarré sa épisode mhm. ne ah man daal tey ci méthode agile laay wax. Mhm. nga jékki-jékki ne ah finalement daal. Mhm. gis naa ni nit ñi. Euh, li leen amal njëriñ du méthode agile mais lii la pour tey c'est-à-dire que pour tey du di douze février wala treize février. ok euh, wala quatorze février Saint-Valentin moo amal njëriñ du méthode agile. waaw <laughs> non mais yaa ngi ànd si wàllu Saint-Valentin yi de. <laughs> non xam naa am nga ci programme yu bëri mais nañ continuer agile bi <laughs> après di ma expliquer naka lay mën a adapté agile bi ci ci ci ci Saint-Valentin bi loolu moom di nga ma ko wax mais hors antenne lay doon quoi allez vas-y. voilà donc donc pour dire xam nga nit ci loolu la rek c'est-à-dire que jamono day dox jamono day dox li nga xamante ne ni amal na njëriñ ñi nit ci tey. suba mën na leen ñàkkal njëriñ ci seen ci seen ci seen boor. donc loolu yëpp ci informatique il faut nit ñi mën a adapté wu ci loolu. il faut nga accepter ko cest ta dire que doo xëy rek ne ah tey li nga ma waxoon ma def suba nga ñëw ne ma defal lii justement nag loolu moo tax agilité ba am importance maanaam dafa dellu ci. d'abord ñu mesurer xool lan moo amal njëriñ nit yi naka la affaire yi di fonctionner euh, donc gis nañ ni que finalement ñi ñu indiloon besoin bi pour client bi euh, dem nañu nee nañ leen deux mois trois mois ñu livrer leen deux mois trois mois nga jox leen dara ñu ne leen fi nga maanaam li nga ma jox nii amalatuma trop njëriñ parce que marché bi business bi ni muy avancé du lii moo ma amal njëriñ lële moo ma amal njëriñ donc ñu gis ni euh, bu ñu xoolee loolu yëpp dañuy perte beaucoup de temps ci sëgg développé benn affaire nekk ci nekk ci ba mu jox ba ba mu jeex équipe bi sonn nga ñëw jox client bi client bi kontaan donc maintenant nag euh, kàngam yi nekk ci àdduna bi. Mm-hmm. te nekkoon di indi ay méthode mm-hmm. comme Scrum dinañ ci ñëwaat. dinañ ci ñëwaat comme Kanban ay XP. Mm-hmm. Euh, ay lean programming. Euh, ay XP programming ay lean startup yooyu noonu yëpp. dañu dajaloo. Euh, février 2001. mais mhm. gis nañu constat bi te vraiment pour gën a mën a informatique euh, avancé mhm. il faut que ñu réfléchir ci lan lañ mën a def ba nga xam ni dinañu mën a gérer suñu projet. Mhm. informatique ba nga xam ni dinañu dab bànneexu clients yi nu mu gën a gaawee. ok ok c'est-à-dire defal leen lu leen amal njëriñ donc loolu moo indi naissance li ñu manifeste agile. ok voilà tu dis ci xam peut-être dina ci Tu dinañ ci gën a xoos ci après alors je pense que euh, déjà explication bi nga joxe c'est très très très clair parce que je pense que euh, bépp développeur beaucoup de grec rek tu vois xam naa ne di nga di nga mos mos nga rencontrer problème tu vois voilà des fois nga xooloo client bi mu nom, la non euh, couleur bi laa et finalement mu ne la couleur bi monde, nga war a mujj changer C'est énormément te li ma ci souligner waat sax muy perte de temps bi parce que comme nous ñu le temps c'est de l'argent imaginez nga euh, développé une application du début à la fin nga pare livrer ko mu avons beaucoup de problèmes à vous ni da nga derrière pour défaire l'application, tu vois changer waat yenn affaires yi. Mhm. surtout bu que les fonctionnalités yi interdépendantes, xaw a euh, interdépendant de donc day remettre sax en question li nga defaroon yëpp quoi donc loolu moo tax kon modèle modèle euh, méthodologie agile bi c' hyper hyper intéressant et ni nga ko expliqué nii euh, c' très clair alors Mansour lan moo nekk les principes des méthodologies agile maanaam mbir yi nga xamante ni moo tax ñu ne lii méthode agile la. Mm-hmm. Très bien. Alors, donc pour, pour, pour, pour, pour continuer justement à lancer bien cette question de loolu la mhm. maanaam lan mooy principe c'est-à-dire d'un mhm. euh, 11 février 2001 donc c'est anniversaire au 20 ans au manifeste agile c'était c'était le, le jeudi mhm. euh, dernier euh, liñ ci doon wax justement ay ay nit autour de l'agilité Ça, dañuy def ay ay ay conférence pour voir ci finalement dans le indi parce que méthode agile la méthodologie agile ci mm-hmm. méthode agile yi. Mm-hmm. Euh, change nañu lu bëri ci alors attends attends attends fofu nga taxaw am la laaj c'est que da méthodologie mm-hmm. agile wala nga méthode agile c'est-à-dire. alors la méthodologie agile voilà mom la doon wax ci introduction ni xam nga nit ñi dañuy wax souvent am nañu utiliser méthodologie am nañu utiliser méthode defuñu defuñu différence bi tuuti mais booy bo bëggee def différence réelle jàppal ni. Mhm. boy wax agile da ngay wax méthodologie agile la méthodologie agile maintenant la méthodologie agile c'est constitué de plusieurs méthodes moom tax mooy te te li ngay li ngay wax yow les méthodes agiles boo les méthodes agiles c'est la même chose que la méthodologie agile ok c'est bon parce que la méthodologie agile voilà bi nekk ci kaw mhm. maintenant la méthodologie agile c'est constitué de plusieurs méthodes agiles ok ça c'est clair maintenant je pense que j'ai compris quoi allez-y continuez ci les <laughs> principes <laughs> voilà donc principe maintenant manifeste agile dafa ñëw génnee ne que mhm. ci base bu ñu xoolee ni euh, projet informatique di mhm. ak liñ finalement satisfaction client yi mhm. c'est-à-dire que ils étaient 17 signataires c'est-à-dire que 17 lañu won ñoo ci développement informatique. gestion de projet informatique ak méthode. Mhm. Euh, méthode de développement informatique. ñoom d'accord ci ni valeur yoo xam ne mhm. moom ci loolu la ñuy sukkandiku mhm. pour gën a mën a euh, euh, euh, jot daj ci bànneexu client yi quatre valeurs yooyu ñu définir ko dinaa ci dellu si léegi ak douze principes yoo xam ni principes yooyu noonu moo ñuy permettre ñu mettre en application c'est-à-dire que Euh, nga am valeur cest à dañ naa nit ku am valeur boo nee nit ku am valeur c'est que nit ki am na nu muy comporté woowee am na nu muy mel nga gis ko nga dund ak moom wala nga nga jokkaloo ak moom ba nga xam da nga naan kii nit ku am valeur la am na yoo xam te ni daf ko jàpp te noonu lay fonctionner. ok méthode agile nag. Mhm. loolu la indi manif ak manifeste méthodologie loolu la indi ak manifeste agile. Mhm. bi may wax nii. Mhm. quatre valeurs yooyu noonu. dañu wax dañu jàpp ni mën naa ko énumérer su fekkee ni. non vas-y vas-y oui exactement oui si si. Mm-hmm. Uh-huh. voilà dañu dañu wax ni première valeur bi. Mm-hmm. dafay tourner autour de l'humain te bu ñu waxee sax agile. Mm-hmm. boo xoolee fépp boo xoolee sur internet bu ñu wax agile rek li ñu njëkk a wax mooy nit nit. c'est-à-dire que mat agilité dafa ñëw pour valoriser nit. maintenant yow ci sa thème sax da nga ni. agilité et si on travaille ensemble.

plus ke processus inti manam li ñu gëna importer li mhm. gëna am solo ci ñun moy mhm. nit ki mhm. ci ci ni mu mel ak ni muy jokkolante ak yeneen ñi ci te moo ñu ëppal valeur que lépp luy processus manam li nga wara doxale ni nga wara doxale ba mu mat ak jumtukaay yi ngay utiliser euh, pour pour atteindre ses objectifs donc loolu mooy première valeur bi mu mettre en avant nit ki ci boppam

d'abord. quelque chose de qualité. donc troisième troisième valeur mm-hmm. collaboration du client plus que négociation de contrat c'est-à-dire que mm-hmm. collaboration avec le client individu interaction donc loolu ci biir équipe bi nga xam ne sax mooy développé la mais au delà de équipe bi développé am na keneen ku ñëw taxaw ki nga xam ne li ngay def yëpp pour moom la mooy client bi client bi hmm. maintenant dañuy wax ni doo ñëw rek ne ah yow client bi lii la ok client bi léegi da ngay ñëw ne defe nii man nii laay def man naa nii laay doxalee affaire d'accord nañu ñu signé ne ñii ne ñu doxalee affaire bi point final boo doxalee neneen rek ñu ne non non non non yow yaa doxalul lu normal moo tax ba euh, euh, affaire yi noonu ñu ne déedéet da ngay ak moom maanaam même bu fekkee ni doxalul normalement sax xoolal li ko gën a ëppal solo ci lim la indil nga defal kolo donc mooy mooy troisième valeur bi quatrième valeur bi et dernière valeur bi mooy client bi bu ñëwee comme maa ngi wax léegi ni bu lu ko ëppal solo nga doxal kolo loolu maanaam client bi ñëw na indi li ñuy wax changement. bu ñu waxante woon ni lii la te client bi finalement gis na ni ah yow bi bi ma la indi les besoins bi nga ne ma deux mois trois mois nga libéral ma ko. entre temps vraiment gis naa lii moo ëppal valeur vraiment ngir yàlla jàppale ma defal ma ci lii waaye lii. wala changer lii au lieu de affaire yi demee noonu quoi. <laughs> voilà c'est ça. Mhm. donc loolu nag mooy mooy mooy flexibilité réactivité bi ngay am ci changement bu indee changement ni ko d'accord. ok nañ ko xool kaa ñu waxtaan ñu xool ko mooy manam daal mooy manam daal da ngay nooy da ngay nooy mun a voilà voilà mun a changer rapidement voilà def na exactement exactement et même dinaa employer terme sax boo xam ni mën nañ ko utiliser pour mhm. traduction buñ ko buggee woyofal mhm. wolofal euh, ci ci ci agilité mhm. mën nañ utiliser le terme oyof oyof voilà oyof exactement te li ma décrire yëpp presque ci autour de oyaf la voilà bu <laughs> ça c'est sûr <laughs> voilà donc donc donc loolu la woon maintenant li ñu indi ci manifeste agile loolu la indi donc quatre valeurs yooyu ma wax léegi plus douze principes yoo xam te ni ça te permet day permettre nit ñi ñu xam valeurs yi nan laa koy manifester au quotidien ok ok donc loolu yëpp mu delloo ñu ci lu am solo ci agilité base bu ñu wax agilité en réalité finalement agilité état d'esprit la état d'esprit la maintenant buy ñëw pour nga matérialiser sa mhm. état d'esprit mhm. il faut nga ànd ceeg mhm. ay valeur valeur yoyu manifeste agile andi na la ko valeur non noonu pour que nga mën ko concrétiser il faut nga jàll ci ay principe Moi, douze principes la jox douze principes yooyu noonu maintenant euh, en termes pratiques, pratiques, pratiques da ngay indi ay affaires yu simple comme ay amélioration continue nga dem ci affaire yi nank nànk maanaam nga diviser li ñuy wax itération def ay itération c'est-à-dire que nga ñëw ne tey à une semaine bi wala deux semaines bi ci lii laay liggéey mhm. mu leer mhm. boo paree nga defaat beneen itération loolu dinaa si ñëwaat peut-être su ma duggee ci biir Scrum après Scrum exactement si si euh, alors alors alors li nga wax c'est très clair alors benn exemple bu ndaw lay lay intro day dugal foofu rek c'est-à-dire euh, dama euh, doon lire démb rek dal ci exemple boobu noonu ma ne dinaa ko joxe ci ci podcast bi c'est-à-dire dañoo dañoo euh, résumé affaire bi comme benn voyageur mu ngi mel ni ngay war a voyager jógee benn bërëb war a dem fenn nga bëgg ne dama voyage bi dama koy régler pile c'est-à-dire ban heure lay jógee fii nii heure bii ban heure lay yegg tel dëkk ban heure lay yegg tel dëkk ban heure lay def nii ban heure lay voilà sama essence bi ñaata lay chargé heure bi may lekk lan laa war a lekk lépp nga réglé ko sa voyage bi pour dem alors ñu ne boo defee loolu nag. Mhm. imagine toi nga dem ba ci yoon bi nga paan mun na yàq programme bi yëpp. imagine toi nga dem ba ci yoon bi sa essence jeex mun na yàq programme bi yëpp donc ñu ne le mieux. Mhm. mooy que ne sooy planifier sa voyage bi nga planifier ville par ville. daal boo jógee Dakar wara dem Saint-Louis ngane ah, a ah su ma damay def premier li may njëkk planifié mooy Dakar Thiès ma dem Dakar Thiès su ma amul ben problème li baxna na mu programme wat Dakar fenen Louga après door a programme fenen donc boko defé comme étape par étape mun nga baña am ben problème donc lool ben exemple mu gissone lek ci euh, internet bi la mëne ne xaar dinaa ko introduire ci dinaa mhm. euh, ko dugalaale ci euh, expliquer ko auditeur yi aussi quoi allez très bien très bien mhm. bo buggee sax ma yokkal la ci justement ni que mhm. lolu c'est inévitable parce que xam nga ni mhm. bo xolé légui covid bi li mu ñëw changer ci aduna bi sax daw ak légui mais c'est extraordinaire c'est-à-dire wan nañu nit la loo doon japp ni damay dem sama voyage damay dem euh, Thiès mu defee ni lay defee lii yaay lii fi mu toll ni kan mo mën wax lolu kenn mënul assurer wu ci lenn quoi presque kenn mënatu ko voilà presque kenn mënatu ko donc indi na benen aspect bo xamné ne importance nga mën a planifier par itération maanaam step by step étape par étape nga ñëw ne lii nga xam ni xam naa ko c'est-à-dire que maa ngi dox sama yoon gis naa ko am naa visuel fii ba Thiès lan laa mën a def naa programmer fii ba Thiès te ma def de telle sorte que mu wóor ma ni fii ba Thiès bu may dem fii ba Thiès dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa dab sama bànneex bu fekkee man maay sama client bopp bu fekkee keneen mooy sama client damay yóbbu kenn mhm. dinaa def tout ba nga xamante ne nii Mm-hmm. li ko amal valeur dinaa ko def. dinaa ko def si si. Donc, non, non, non, ah, ça, c'est hyper, c'est hyper clair, hein? Ça, c'est hyper clair. Et, et, mangi gëna am ben lu gëna leer ci euh, méthodologie agile bi. De telle sorte que xam naa ne mën nañ ko utiliser ci domaine yu bëri sax ci domaine yu bëri. Alors, après, mm -hmm. après principe yi ak valeur yi nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw euh, méthodologie agile il faut que ñu xamné aussi comme ni nga ko waxee sànq am ay méthodes yu bari yu ci nek loolu motax sax nga def sànq différence entre méthodologie bi ak méthode yi c'est-à-dire amna ay méthodes yu bari yo xamanteni dañ ko baser ci principe bi ak valeurs yooyu non non nga xamné mo nek ci méthodologie agile. alors yan méthodologie agile ñu gëna a ci euh, yi nga xamanteni mom lañuy utiliser ci entreprise pour gérer projet de développement yi. Mm-hmm alors ci entreprise yi euh, li ci gën a fës te mu leer nañ nañ nañ mooy scrum. scrum cest que bu ñu booy déggee suuf scrum moom da nga ciy dégg ñu ciy wax très très souvent c'est effectivement parce que mooy méthode bi ñu gën a utiliser depuis bi ñu génnee manifeste bi 2001 ba léegi dafa am di nga am comme li ma wax am na ay société yoo xam dañuy spécialisé wu ci def ay enquêtes enquête, yoo xam ni nag souvent dafay seen seen xam nga enquête bu ñuy wax enquête dañuy wax échantillon c'est-à-dire que di nga jël forcément. Euh, une certaine échantillon da ngay def échantillonnage bon pour ñu defal statistique yooyu noonu boo xam ne c'est représentatif de population bi nga bëgg a viser mais euh, société yooyu noonu yëpp dañuy génne presque am na yu génne am nañu génne chaque année ay ay ay ay ay statistiques at bu nekk ay statistiques pour génne yan ñooy ñi méthodes yi ñuy gën a utiliser yooyu te depuis en tout cas man bi moo koy suivre ba léegi te même balaa sax may intéressé wu ci affaire agilité mhm. Scrum daal moom dafa mel ni moo gën a euh, moo nekk li ñuy gën a utiliser. moo nekk au top euh, ci gannaaw voilà moo nekk au top après Scrum nag souvent booy dégg agilité souvent buñ koy buñ koy indi sax c'est-à-dire ñoo xamante ne xamuñu dara ci agile buñ leen di jàngal d'abord di leen di leen di leen partager lan mooy agilité souvent da jël Scrum teg ko à côté de Kanban. ok. Kanban ok parce que Kanban mooy lan Kanban c' est une méthode la boo xamante ne nii. Mhm. presque maanaam ni, ñi organiser mhm. di ko def tous les jours presque ni def nañ luy jege Kanban. Mana nga jël nga xalaat ni ah lan laa war def am nga foo xam ni foofu ngay lan nga war def lan di def mooy ce qui est en cours boo paree lan laa lan lan lan laa terminer lan laa def ba mu jeex dajal Manam déjà nga structurer lolu ngay def rek. Mhm. ya ngi jege ci pratique kanban donc kanban eh, eh, souvent nit ñi dinañ ko xawal laal tuti donc boy wax nit ñi. Mhm. affaire kanban dina leen xawa eh, dina leen naka laa ko waxee ça leur parle un peu dina dina la dégg tuti ok dinañ jëli ko. maintenant nak bu voilà dinañ jëli exactement merci. Mhm. maintenant nak ci ci ci ci pratique yi dafa am nak forcément ay principe ñu ngi organiser pour que nga mëna Euh, tirer le meilleur c'est-à-dire que def exactement le plus proche de ni pour que yow sa objectif nga jot ci donc ça me permet de rappeler que ni agilité dañuy wax souvent da ngay entreprises di wax euh, on veut être agile. Mm-hmm, euh, mm-hmm. on fait de l'agile ak yooyu. li gën a important te jar a wax. Mm-hmm. mooy agilité du objectif. agilité c'est un moyen donc bu ñuy wax méthodologie agile donc bay dem ci ay méthode agile boo naan damay utiliser Scrum utiliser wuloo Scrum pour wax ni c'est bon man maa ngi ci kaw damay utiliser Scrum da ngay utiliser Scrum parce que da nga am objectif mooy objectif bu satisfaire ce client c'est-à-dire def loo xamante ne nii euh, mu ngi dab client bi bon à mes satisfactions clients c'est business bah na. day oui ça c'est sûr. ci képp kuy développer informatique voilà donc agilité il faut toujours savoir avoir en tête que c'est un moyen ce n'est pas un objectif donc par là maintenant nag ci mhm. c'est un changement de culture madame mhm. ni ma doon doon bu client wax ma. dara ba ma di def mu ne non non est-ce que changer non non non non wax nañ ba def point final. Mhm. voilà bokkul ci posture wax état tout à l'heure. Ah, def am client yu sax déjà. am client yu quoi. exactement voilà exactement exactement. <laughs> man yaa yaa ma soufflé moom dafa mel nag foog ma ñëw sax nga jox ma ay cours wala quoi dafa mel ni. am na yu bëri yoo xam quoi. <laughs> ki ngay ki ngay waxal de depuis collège depuis collège rek daan wax naan déggoo olof donc fu mu toll nii moom. <laughs> effort bu extraordinaire. <laughs> ah waaw mais mais euh, mais quand même ça ça passe pas mal ça passe très bien quand même franchement allez vas-y. Euh, Machallah. <laughs> voilà donc donc donc pour pour pour pour pour répondre vraiment à cette question dañ japonais, ni euh, yi ñu utiliser ci entreprise comme méthode Scrum la boo ci topé Scrum Kanban maa koy mais Kanban nekkatul fu mu toll ni ci dernier classement yi bi nga xamni mo tu ci top juste li ci top li ñi tuddee Scrum ban Scrum ban moy lan manam dañ jël Scrum jaxase ko ak Kanban. okay voilà scrum jaxase ko ak kanban mais ñi ko ñëk def euh peut-être au début dañ non non non non parce que scrum ni la li la laaj li la wax ni lañ koy defé ak yoyu gitu, pour nga mëna def ko vraiment mais euh, souvent comme li ñu wax agilité yaa ngi ko wax léegi utiliser nga mot flexibilité manam da ngay xool c'est un moyen je l'ai rappelé da ngay xool li gën a adapté ci yow li nga bëgg jot comme objectif mhm. nga utiliser ko nga def pour moo tax nit ñi nag dem ba finalement dañuy wax léegi Scrum parce que c'est un mix entre Scrum mhm. Kanban et ça marche bien pour ñi koy pratiquer donc après di nga am XP Extreme Programming mhm. hmm. mais XP euh, toujours Scrum moo nekk vraiment en tête et largement en souvent sax da am jusqu'à euh, par rapport ak euh, bo bo jëlee méthode yëpp globalement plus de 50%, moitié wu ñëpp ñuy utiliser méthode agile ñëpp scrum la ñëpp scrum alors alors alors alors alors su ma ñëwee euh, si euh, euh, suñu jëlee par exemple framework scrum bi ñu jël concentré wu ci scrum bi comme déjà nee nañ moo gën a nekk bi gëna mag mom la ñu gën utiliser tu vois parce que je pense que déjà bokk na ci gën a mag man loolu laa yaakaar quoi té déjà loolu nga wax sax déjà lan moo wutale scrum ak yeneen méthodes yi nga xamante ni ñoo fi nekk maanaam euh, euh, muy kanban beeg scrum ban beeg lan moo leen utalee ak euh, ak ak lan moo utalee scrum ak yeneen méthodes yi ah, mais aussi lan moo nekk ses caractéristiques quoi maanaam naka lañ koy ràññee. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. alors scrum scrum ko utalee le plus souvent c'est que scrum dafa dafa structuré bu baax c'est-à-dire que dañu définir ni mbir yi boo bëggee mu dox. doxalee ko nii doxalee ko nii doxalee ko nii. et doxalee ko nii doxalee ko nii doxalee ko nii boobu noonu dañ ci teg ay rôle c'est-à-dire que ki nga xamante ne mooy taxaw ne ah scrum nii la nii la ko recommandé ñu defee ko nañ ko defee wéññi buñ defee leneen loo xamante ne nii bokkul ak li nga scrum recommandé mu mën a dellu si ne euh, scrum waxeewu ko façon bii façon bii la ko waxee. priest yi maanaam ñi nga xamante ne dañu xaw a dogmatique dañuy dañuy dañuy appliquer à la lettre. dañ dañ la koy defal façon boo xam te ne di assez strict mais am na importance am pourquoi parce que finalement li def différence entre Scrum ak yeneen méthodes yi c'est que c'est structuré et dafa définir clairement les rôles. les rôles quoi ok ak les responsabilités. ok ok donc rôle yi ak responsabilité c'est clairement défini. pour wane ni bu ngeen organiser façon bi kii xam ni lii mooy liggéeyam kii xam ni lii mooy liggéeyam. ñeneen ñi ci des yëpp ñu àndandoo maintenant nag ci ay valeur valeur bu manifeste agile yi ñu waxoon mais Scrum ñëw teg ci comme caractéristique ne man dama ñëw indi ay valeur propre ci quatre valeur yi manifeste indi man dama ci yokk ni man samay valeur yoo xam ni boo ko bëggee boo bëggee Scrum jëriñ la ci sa yoon pour atteindre sa objectif doxalal lii comme valeur maanaam am nga ay euh, am nga ay valeur yu leer yu yu ma teg mu clair ak dérouler ko ci façon bi euh, ak rôle yi nga xam te moom laa définir mm-hmm. ñoom ñu veiller à ce que mm-hmm. donc benn rôle en particulier moom la ñuy wax scrum master donc dafa définir ma commencer d'abord ci comme caractéristique ci les rôles les rôles dafa définir clairement ni il y a un rôle de Scrum Master qui est défini, qui est, qui est, qui est, euh, joué par quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un ci équipe bi, mom lañuy tuddé Scrum Master. OK. Euh, moi moy def de telle sorte que je veille à ce que ñu ñu les choses de la bonne façon euh, pour que suñu objectif ñu atteindre. Kenen ki mom lañuy wax product owner, moy remplacer un peu qui le un deal, euh, liggéey na la nil na le besoin bi dire na ma ni lii buñ ko defee client bi dinañ satisfaction ok donc kooku product owner. ok pour résumer hein, vraiment détail. parce que Scrum si de façon très ah, claire de toute façon épisode que nous euh, juste les pistes nous, permettre après documenté wu euh, davantage pour mën découvrir yeneen affaire yu gën a bëri ci affaire parce que loo xamante ni dafa laaj ay certification wala dafa laaj nga jàng bu baax a baax mënoo ko résumer ci ay quelques minutes quoi tu vois donc ñun dañuy mhm, joxe brèche bi dañuy joxe euh, coup d'envoi bi dañuy joxe information bi pour que nit ñi xam ne nekkul lu jafe nekkul lu métti mais war nañ ci mën a accéder bu ñu demee ci internet yi wala ñu jënd livres yi ak yu demee noonu et je pense que même euh, bi ngay répondre ci caractéristiques la la la nga sax une question bi nga xamante poser et je pense que dama lay poser question pour ñu euh, Scrum di c'est-à-dire naka la la Scrum di doxee maanaam ci client bi nga client projet niñ livrer produit bi étape la bi acteur ñoo projet bi c'est-à-dire sax mais en fait résumer d'une manière générale ñu xam ci Scrum bi équipe bi ñan ñoo tu vois bu projet bi ñëwee kan moo koy jël kan moo koy présenter équipe bi ak naka la liggéey bi di demee exactement au sein de l'entreprise. Mhm. alors donc bu bu bu bu besoin ñëwee nan lay demee. Mhm. ki ma wax léegi product owner ki ma mujjee wax. Mhm. moom mooy ñëw indi besoin c'est-à-dire que moom mooy dem xooli ji client yi lan moo leen gën a intéressé ci produit par exemple bu ñuy développé lan moo leen gën a intéressé lan moo leen ëppal valeur comme ni ma wax depuis le début mu indi ko teg ne ah. man nii laa bëgg maanaam dama bëgg jóge tey sama kër eh, accès sama bureau moom loolu la indi teg ñu ne ko ok da nga bëgg jóge sa kër dem sa ça veut dire que peut-être il te faut benn moyen de transport donc moyen de transport bu maintenant nan nga bëgg mu demee eh, mu ne loolu léegi man loolu laa indi teg c'est-à-dire que loolu nekk na sax presque projet ba pare. wala produit ça c'est sûr une demande claire mm-hmm. maintenant nag pour dugg ci biir lool ngay commencé ne ah pour jógee fii dem sama kër lan laa am comme option mën naa dox bu fekkee ya am naa oto mën naa jël oto bu fekkee ya aw ma oto mën naa jël taxi bu fekkee ainsi de suite ainsi de suite donc loolu mu établir li ñu wax backlog c'est-à-dire que demande bi naka laa koy fonctionner indi na benn première chose ni ah bëgg naa de de de jóge sama kër ba dem kii bi war naa mën def lii d'abord c'est-à-dire génn dugg ci oto donc génn dugg ci oto mu jël ko dugal qu'est-ce qu'on fait Donc lolu yaangi commencer commencé di construire li ñu wax backlog indi nga ay éléments pour défar pour atteindre ce anu objectif lan nga bëgg def. maintenant lan lañuy def après scrum master mo ñeu ñëw organiser eh, li ñu wax ay séances pour mëna xol ñu xol naka lañuy euh def ba naka la ñuy naka lañuy ñëk commencer def est-ce que dañuy ñëw juste commencer def traiter génn sa buntu kër dugg ci biir auto yéen sa bu doon dugg ci biir oto xam nga am na affaire yu bëri mën na nekk taxi laa jël mën na nekk damay jël car mën na nekk ainsi de suite maintenant ñu ne ci loolu la ñuy donc scrum master bi mo mo jouer le rôle de facilitateur manam mo yombal liguey bi ñep interaction bi entre ki li mu bëgg est ce clair na ci bop ñi ko wara defar bu fekke la rôle mu jappalé ba nit ñi comprendre leen. comprendre lepp quoi maintenant ñu démarrer nak ni xaaral loolu la ñu commencé manam démarrer la ñuy wax sank itération. ok ce qu'on appelle un sprint.

xol nga déroulé nga épisode bi am na ñu ci liggéey def ko ba mu jeex bu paree nga jël feedback yi boo jëlee feedback yi nga xoolaat nag li ma defoon nan laa ko defee mhm. la lañ ci wax lan moo ci baax lan laa ci war a changer pour que beneen yoon mu gën a euh, dab bànneex donc loolu noonu rek mooy lu simple mooy mooy li nga xamante ni moom la ñuy répéter di ko répéter di ko répéter te di nga trouver toujours luy tax ba nga mën def plus que li nga defoon avant. pour gën a dab bànneexu client. ok ok donc noonu la Scrum di fonctionner. ok ok je vois alors là c'est hyper hyper clair gis naa ci internet bi ay gars yu bari yoo xamante ni da ngay dégg ñu ne la non Scrum agile c'est compliqué euh, man personnellement je te dis man li ma ci gën a euh, soof mooy mele yi hein. ah. <laughs> c'est-à-dire chaque jour 9 heures. mooy da ngay taxaw <laughs> tu vois chaque jour 9 heures da ngay taxaw. <laughs> après voilà gars yi nekk di wax di wax ba du maximum dépasser 10 minutes 15 minutes tu vois ku que euh, parce que je me souviens déjà man mhm. première fois ma que euh, qui ci met à c'était hyper euh, mythique quoi dafa parce que soo mhm. ñëwee neuf heures dañ lay wax lan nga defoon demb tu vois nga expliquer rapidement li nga defoon mhm. demb ba paré wax leen ndax am nga blocage wala am blocage tu vois mais à la fin au début dafa dafa qu'on métier trop dafa xawone contraignant parce que des fois mun nga bloqué ci benn problème nga euh, rus nga wax ne non bloqué naa ci problème bu sew bii tu vois nga nekk ci pendant ay deux jours trois jours. Mm-hmm. alors li ma ci découvrir mooy que ne su ma amee problème suba suma ñu ñëwee def mêlée damay wax sama problème rapidement ñu boole ma kenn mu décanté ma mu continuer et là. bi ma découvrir mm-hmm. ne c'est là ci laa xam ne franchement euh, méthode bi méthode bu efficace et c'est très bien dafay permettre doo perte temps bu bari te da ngay gën a efficace te aussi day gën a comme li nga wax léegi mooy collaboration c'est-à-dire c'est pas nit day individuellement moom mooy moom mooy réussir na ah mais projet bi lañ bëgg mu réussir te projet bi ñëpp ci jàpp pour que mu réussir donc du coup euh, man personnellement j'ai j'ai vu que ni c'était hyper mais am na nag gars yoo xam ne naan dafa métti mais je pense que euh, boo demee ba ci biir rek di nga xam ne di nga xamante ne ni dafay jàppale sax ñi nga xamante ni mooy développeurs yi ak euh, képp ku seq projet bi quoi. Hum, hum alors euh, par exemple man. beneen fi ma bëggoon a rebondir rek mooy. Hmm? ala da nga am loo dolli waaw non non nga wax nga wax na peut-être peut-être ne juste li nga vivre comme li nga hmm. maintenant la différence entre ki nga xam que dem na comme yow ak c'est que Scrum Master bi wax rôle Scrum Master boobu dafa war jouer rôle facilitateur maanaam dafay yombal affaire lu leerul. ci bopp nit ñi ci façon biñ koy defee mu leeral ko ba pare ma dellu ci waat ci li ma waxoon depuis le début agilité lan lañ ciy wax mhm. nit ñi façon bi ñuy xalaatee. Mhm. ak façon biñ koy traduire ni ñuy xalaatee. Mhm. donc bu ñu jotee dara. niñ koy vivre ni ñuy wane ni noonu lañ ko vivre yooyu yëpp. dafa am li moom la ñu tuddee interaction dafa am importance. donc dafay changer mhm. fondamentalement li ñu wax suñu culture donc bu ñëpp àndandoowee nekk ci même état d'esprit bi focus ci même objectif bi souvent comme li nga wax di nga finalement comprendre ni ah ki ma doon jàpp ni dama ci xaw a rus wala dem ci kii euh, finalement euh, te te te bokk na ci valeur crème sax mooy openness c'est-à-dire ouverture il faut nga ubbeeku ci nit ñi mhm. boo ubbeekoo rek day gën a yomb. day gën a yomb ça c'est sûr alors je pense que le message bi jàll na nañ ubbeeku ku ci am problème même bu fekkee da nga nekk ci entreprise boo xam ne sax ah, defu leen agile amul na utilisé wu leen les méthodologies agile boo amee problème jegeel keneen koo xamante ni mu ngi nekk à côté nga discuter ak moom pour mu trouver solution parce que des fois di nga ci benn affaire wër ba son tu vois alors que ki am efficace bu voilà attentif yow alors Mansour man de wax bon quoi Mansour c'est la même hein. chose <laughs> alors Mansour. Ben, le Mansour. Ah, nga tu vois <laughs> alors je pense que tey Sénégal bari na entreprise yoo xamante ni tey euh, bëgg nañoo travailler comme ni nga ko waxee léegi avec méthodologie agile yi mais des fois dañuy gis ne euh, dafa am na ñoo xam ne naan méthode bi dafa diis trop quoi wala wala dafa naqaree euh, respecté ak yu demee alors par exemple man tey su ma amoon sama benn entreprise ma bëgg travailler en mode agile avec Scrum lan moo nekk prérequis yi nga xamante ni moom laa war am pour mën a réussir loolu ci sama équipe. Mhm. alors c'est eh, li li li nga wax solo trop solo eh, donc daf may daf may daf may rappeler une chose mhm. am entreprise bëgg travailler méthode agile il faut toujours se poser la question mhm. pourquoi pour quel objectif madame lan moo tax travailler méthode agile bu fekkee ni li may def maa koy def mhm. mu ngi résultat bi xaar jarul souvent jarul may chambouler li may def waxee léegi te wax naa ci wax nañ sànq ci Covid beeg yoyu mhm. jamono ji dafa jaxaso business bi. dafa dafay dafay changer très rapidement. donc forcément et je pense que Saint-Valentin bi sax dina jaxaso aussi quoi. <laughs> non il faut s'attendre à ah, tout hein. non Saint-Valentin bi dina jaxaso bu yeboo gars yi am seen Valentin Valentine tu vois ñu ñu def attention bu baax que dina jaxaso ça c'est sûr. couvre-feu déjà vingt et ça c'est clair boobu. <laughs> Euh, euh... <laughs> Allez, continue. <laughs> donc, donc, donc, voilà. Donc, du coup, euh, par rapport à que, par rapport à Lolo, naka, naka def, les prérequis vraiment pour Scrum, comme les mots, d'abord, toujours, vous n'y avez pas agile, vous m'en avez pas dans mes dents, n'a, définir objectif, bah, pareil pour sa entreprise, l'an la bug. Ok. Pour ça. Vous m'en savez l'an la bug, bon, l'air, n'a. Mani, ah, méthode agile peut-être ah méthodologie agile ci dire dina ma déjà jàppale ba ma agsi méthodologie agile yoy y gis une ni méthode agile bi ñuy tuddé scrum mën na ci am solo nañ dem pour dem nak lan ngay soxla il faut que nga xam nga faut nga xam euh, en tout cas équipe bi kay di utiliser il faut que ñom ñu xam lan moy scrum master lan moy product owner lan moy seeni rôle ñom ñaar lan moy équipe de développement bi donc parce que tu as équipe développement tu as le scrum master et tu as le product master c'est les principaux trois principaux ñetti rôle mhm. principe euh, principaux yi mhm. ci scrum donc il faut que nous mën xam lan scrum master le scrum master le product owner pour loolu nag jafewul trop am nga ay formation yu bëri léegi am nga ay base donc man tamit sama genre bi tamit mën nañu def ay formation ci euh, donc meun nga rapprocher vraiment ci ci ci ci ñi ko xam wala ci structure yi def formation yi mhm. commencé am base yi bu ngeen amee base yi nag mooy li wax toujours rek expérience bi moo ëpp importance lépp loo gis nit mën naa am ay certification yu bëri ne je suis certifié Scrum Master je suis certifié temps waaye pratique mhm. ah, ci ci ci parce pratiquer moom mooy rencontrer ay problèmes di jéem ut ay solutions exactement tu vois kii pratiquer sax mooy mm. dem sax ba gis ay failles peut-être sax ci méthodologie bi tu vois ba mun ci ay solution tu vois surtout man damay damay woo à chaque fois son, son, son, son morami ou wala son rakk yi que ne looy utiliser lu nekk rek demal ba ci biir ba comme les gens wax mbóot bi quoi nga dem ba trouver mbóot bi c'est-à-dire boo demee ba trouver mbóot bi rek da ngay mën a façonner affaire bi à ta à ta façon da koy mën a def num la nexé eh, yokk ci ay affaire améliorer ko ak yu demee c'est la même chose aussi ak mhm. langage de programmation yi boo ko maîtriser wul doo ci mën yok yokk dara doo ci mën a indi sa benn xalaat donc c'est très important pour que euh, nga euh, donc kon formation bi lu ci am solo la c'est-à-dire boo bëggee implémenter mhm. euh, utiliser modèle euh, méthodologie agile yi ci sa entreprise pour gën a ñoŋal sa liggéey mu gën a baax il faut que man je pense que nga def kon euh, formation adéquate euh, sa équipe bi wala benn nit ci équipe bi wala genre de à la fin moom mu ñëw former nit wala ngeen jël ku mel ni Mansour tu vois mu ñëw former leen former équipe bi ci naka la scrum di doxee euh, voilà gannaaw bu ngeen définir les objectifs yi ngeen am derrière ba pare n'est-ce pas alors mhm. d'après sa explication yëpp je sais que travail boobu yëpp pour nga def ko ci biir entreprise bi waxuma formation bi mais pour nga dawal méthodologie bi ci biir euh, seen ni ngeen liggéeyee il faut que ñu am ay outils yu mën a centre la centraliser liggéey boobu yëpp quoi maanaam ay outils yu mën a dajale liggéey boobu yëpp alors Mohamed selon sa expérience yan jumtukaay nga yaakaar ni ñoo gën a efficace pour gérer ay projet agile facilement ci entreprise bi. alors loolu loolu loolu moom mën na mën na sax mën na sax yomb c'est-à-dire que agilité mooy li ñu wax rek mhm. euh, souvent dañuy wax naan démarrer ak li nga démarrer ak li nga am maanaam li nga am tàmbalil ci loolu. te agilité daf ñu ko yombaloon boo amul benn outil sax. Mhm. post yomb na. ok euh, stylo yomb na. ok post mooy post-it mooy boo amee yooyu ñuy taf. post-it. post-it euh, baal ma dégguma lu baax nga ni. ah post-it la post-it mooy. post-it voilà. ok parce yi mën nañ bañ a xam lan la ñuy la ñuy wax quoi mooy affaire yu euh, boo di waxee scrum sax boo demee internet gis ñu gis papier yu ndaw yu jaune yooyu noonu ñuy taf ci mur yeeg taf ci voilà. seen mhm. tableau yu yooyu noonu quoi voilà vas-y ñooñu exactement donc donc loolu loolu loolu souvent loolu ngay gën a njëkk boo amee loolu rek mhm. mën nga démarrer c'est-à-dire que lu tax loolu loolu loolu nekk loo xamante ne nii lu important la parce que da ngay jàll ci li wax souvent le management visuel c'est-à-dire que mhm. lépp dañ koy gis dafa am transparence transparence dafa bokk ci euh, nga xamante ni nii presque valeur yu ñu partagé ñëpp la donc même au-delà de valeur sax Scrum daf ko boore ci Scrum Theory cest dire que euh, valeurs yi leer na mais à part ça da war a utiliser li ñuy wax transparence inspection wax nga ko sànq sax mooy li nga xam da ngay creuser da ngay dem xool mbóot bi lu important yaa ngi ko wax ci cadre développement mais Scrum daf ko indi mhm. man dama koy teg comme lu lu lu extrêmement important les piliers de Scrum mhm. Mhm. transparence mhm. inspection mhm. dugg ba ci biir xool affaire donc bu ma émission jeex mhm. ma ci lan def lu lan améliorer adaptation bu coupure connexion wala wala kii kii ñu xam koy <laughs> donc

lan lan lan lan laa jeexal. ok ñett yi daal. Mhm. base boobu boo ko xasee ba teg mën nga commencé après nag boo duggee ci ay logiciel ak yooyu noonu. Mhm. dinañ bon dinañ am na yeneen logiciel mën nañ ko partager. Mhm. Euh, comme ay pour pour la partie digitale. Trello c'est à comme logiciel bu mel ni Trello pour gérer. voilà tâches yi def ak yu defut nekk en. gérer tâches yooyu euh, noonu. ok am na aussi exactement exactement c'est plus ou moins voilà. fay. tout à fait tout à fait. Okay, donc pour ne pour ne citer que cela vraiment mais après amga nga ay. am nga yeneen yu yu mais yooyu Jira surtout vraiment beaucoup na ci gëna a ci ñu utiliser. Euh, c'est-à-dire c'est-à-dire Jira euh, da lay permettre yow tâche yi nga xam ne ni mu nekk en cours. donc fay mëna bind par que man su ma fekkee dama wara développer ben fonctionnalité bu bees mun naa créer benn. ben ben fonctionnalité bu ma bu créer ma def ko ben tâche tâche boobu damay mën a xam fan laa ci toll commencé naa ko mu ngi nekk en cours wala pare na tu vois instant bi da ngay mën a voilà gérer projet bi yëpp donc du coup après euh, chef de projet bi wala genre de wala euh, scrum master bi xaw ma bu ñëwee xool dañuy gis kenn ku ci nekk li muy def à temps réel quoi donc loolu moo tax c'est hyper important c'est dafay permettre nga mën a def suivi projet bi d'une manière très efficace quoi du ñàkk ne après sax mën nañ gën a détailler waat ci yeneen euh, ci yeneen jotaay beaucoup plus ci outil yooyu noonu quoi voilà alors alors Mohamedou, je pense que c'est tey ñu agsi frein parce que déjà voilà on est di urbanité alors euh, d'après ce que expliqué c'est-à-dire euh, méthodologie agile a une importance trop ba nga comme la méthodologie agile est euh, une ay nit tu vois bëggoon naa ont question bu am solo c'est-à-dire lan qui nekk jafe fait yi nga xamante ni mën nañ ko rencontrer la méthode agile Ou la méthodologie agile d'une manière générale. Mm-hmm. Mhm. alors effectivement ba waxtu ki bu point bu important la. Mhm. parce que lépp loo gis dina am avantage dina am inconvénient. mais souvent jot nga sax laal ci tuuti inconvénient bi ñuy gis. Mhm. mooy une mauvaise compréhension c'est-à-dire que nga ñëw ne damay def scrum ba pare. nga commencé def scrum mais defuloo ko ni nga ko war a defee un peu euh, jaxase xaw a jaxase kii bi mën na dem ba comme daily day li ñuy wax sànq mooy mooy euh, stand up meeting bi euh, mooy mele bi c'est-à-dire que mooy waxaat ci mele mele maanaam scrum scrum boo xoolee tradition fu mu jugee c'est mele c'est c'est tradition en français mooy mele mele mooy lan euh, ça vient du rugby boo xoolee rugby dañuy jékki-jékki à un moment donné mu mel lu am touche ci football. gars yi ñëw xaw a jékki-jékki préparé pour jaxasoo. Hmm. waa ji sànni bal bi ci biir rek nit ñi ñëw rek jaxasoo ci biir. entre ñaari équipe alors foofu foofu la mele bi jógee quoi. voilà. foofu la mele bi jógee exactement foofu la mele bi jógee donc c'est pour dire que c'est un moment important boo xam dañuy taxaw ñu ñëpp jàkkaarloo ku nekk waxtaan ci lan nga def euh, yan problème nga am surtout donc bu fekkee nit ñi teeluñu comprendre loolu ni mhm. objectif bi c'est plus pour mën a échanger nga xam ne da nga amoon blocage perte fa deux jours kii à côté defoon na li nga doon def ba pare am na ci xam bu màcc boo xam ne mën na la ci jàppale mais da ngay temps te te finalement loolu ngay vivre lu neexati ci yow

base agilité dama am besoin la té agilité moyen la donc de utiliser ni nga xam ci sama contexte ça répond à mon besoin ba nga xam ni atteindre sama objectif. ok ok voilà. alors ça c'est donc pour pour pour pour pour inconvénient vraiment parce que. Mhm. impact bi muy am ci mauvaise compréhension bi ak mauvaise pratique mhm. c'est que ça peut même jouer jusqu'au bien-être ci. ah oui ah oui parce que stress baaxul stress comme li ma wax sank rek man début bi dama nan stressé voilà dama nan ñëw tok voilà surtout que des fois tu travailles des fois sur tes technologies yoo xam ne tu viens à peine yaa door découvrir tu vois ñu sant la ci ay tâches. Hmm. mu am ay blocages ngeen ñëw war def mêlée gars yi di wax gauche wax droite et et juste ben anecdote c'est fois ben jour pense na ñëw ñu def ben fonctionnalité bu bu ma waroon no développer ça c'est waaw ça avait beaucoup de temps tu vois du coup damay ñëw rek ni taxaw ni gars yi ne fa nga paré foo toll ma ni waaw may avancer point je dis même pas mais après je me disais dans ma tête que au fait je me a pour dire une heure de temps deux heures de temps avant ñu je koy laaj pare fonctionnalité tu vois mais après tu te rends compte le lendemain tu viens photo le nga mangi ah là là après ça ça bloque mais après bon et ba découvrir affaire tu vois après tu sais que voilà ce sont des erreurs à ne plus commettre tu vois et ça passe après quoi tu mmh. vois mmh. alors en tout cas un inconvénient mon jeu jouer stress mon na indi stress tu vois ak incompréhension surtout que nag su fekkee ne ñi nga xam ni ñu ngi doxal méthodologie bi comprendre luñ ko sax bu baax ah, lii Scrum Master bi war a def rôle am defu ko product owner bi rôle am bi mu war a def defu ko tu vois wala sax mën na am sax yenn yoo xam ne hmm. ñàkk xam la donc day indi yenn répercussion ci couche yëpp quoi tu vois développeur beeg yëpp dañuy am après. ay ay ay ay problème et je pense que loolu moo tax ma euh, ci Twitter j'avais dit que ne euh, demandé woon naa question pour laaj gars yi seen entreprise yi est-ce que dañuy utiliser Scrum à 100% pour cent cinquante pour cent pour cent wala 0 pour cent quoi tu vois parce que am na ñoo xam ne dañ lay wax Scrum la ñu utiliser mais bon Scrum entre parenthèses hein, voilà kenn xamul lu ñuy utiliser sax lan la quoi tu vois. parce que mhm, respecté mhm. wuñ affaire yu bëri. loolu la ñuy tuddee souvent Scrum but. Ouais, oh, <laughs> Scrum <laughs> Scrum but Scrum but, on boo xool ci kii loolu lañ koy tuddee quoi Scrum but, but c'est le mais en anglais quoi mooy maanaam Scrum waaye. Scrum but, waaye si si si si <laughs> ah oui ah oui ça c'est cool ah oui donc donc du coup c'est ça alors. Euh, Mohamed, ñoo ngi presque ci fin au épisode bi c'est euh, juste dernière question que est-ce que déjà je pense que répondre nga est est-ce que avons utilisé utiliser méthodologie agile ci un projet yu nekkul informatique et je pense que mon maire répondre sax ne oui parce que dama koy utiliser sama podcast bi euh, maintenant les. <laughs> je pense <laughs> alors voilà, mhm. rapidement lan nga ñu mën a wax ci quoi projet yi ñu ko utiliser waaw loolu moom vraiment pour misaalal la ko mën naa la wax ni que li ñu tuddee framework framework yi mooy mhm. euh, bon framework ñi def développement xam nañ ko bu baax sax mooy ay librairie yoo xam ne da ngay pare nañ da ngay ñëw rek jël utiliser framework yi comme ay Scrum yooyu noonu yeneen yi si des yëpp souvent li ñuy gën a def léegi de plus en plus seen dañuy changer de telle sorte que duñu yem rek ci informatique c'est-à-dire même ni ñu dañ lay ni ñu lay ñu ni def ne la ngay def ne def il ko duñ la wax développeur informatique duñ la wax architecte logiciel wala yow dañ lay wax développeur mu regrouper ñëpp Scrum par exemple ci ci euh, dernier dernier dernière version bi mu génnee en 2020 donc le euh, 18 novembre la ñu fêté woon seen 20 ans tamit Scrum euh, loolu lañ doon wax c'est-à-dire que dañ changer ay dénomination pour dire que vraiment ay Scrum ak yeneen framework bu ñuy wax agilité à l'échelle peut-être du kii mais beneen yoon dinañ ci kii mais ñoom ñëpp dañuy dañuy dañuy dañuy kii pour ni léegi affaire méthode agile yi ce pas que pour informatique léegi mën nañ ko utiliser fépp la preuve Kanban d'ailleurs ça vient de Toyota euh, ça vient de l'industrie donc Toyota mooy ñi defal oto yi ah Toyota ko fu Kanban jógee euh, boo gisee XP tamit tamit boo xol ci anandir nit ni Chrysler lañ koy associé quoi. Euh, Chrysler Chrysler xam nañ xam nañ Chrysler donc. Euh, euh, ah non non non mais c'est c'est sûr que maintenant dina dina defar ben dina créer ben méthode ci biir méthodologie dinaa créer benn méthode uniquement pour adapté ko pour podcast yi quoi voilà nga xam ne ni kuy def podcast. exactement <laughs> ni nga koy toppee quoi <laughs> alors. Euh, alors euh, euh, juste je pense que tey épisode bi am na solo trop wax na waxtaan waxtaan nañ ci naka la ñuy intégrer méthode yeeg tu vois voilà yu demee noonu tu vois alors ban conseil ngay jox bépp entreprise wala bépp étudiant wala bépp professionnel maanaam képp koo xamante ni daal bëgg na maîtriser les méthodes méthodes les méthodes agiles wala méthodologie agile ba noppi di ko liggéeyee chaque jour ban conseil nga leen di jox. Euh, eh, conseil bu may jox c'est vraiment euh, nañu jangat, c'est-à-dire nañu nañu nañu nañu documenter wu nañu dem xol. Mhm. euh, nañu approcher wu ci ñi nga xamni pratiquer nañu ba pare du juste ki nga gis ni dafa dafa certifier rek nga ni ah kon ki won na ki non ñi nga xam dañu pratiquer da nga gis nañu pratiquer nañu approcher wu ci ñun. man damay c'est-à-dire que damay jang tous les jours je, je, je, je ne me dis pas que xamna li bu ma bu ma nee am na benn jour ma toog nit ne ne sama benn collègue dañ doon présenté wu ma ne je suis ingénieur informatique c'est-à-dire que formation ingénieur informatique génie logiciel laa def mu tourné xool ma ne ma ah bon parce que moom foogoon na ni man affaire affaire RH laa doon def parce que coach agile da ngay ngay def psychologie da ngay accompagner nit ñi coaching individuel da nga koy def donc affaire état d'esprit da nga ci liggéey lu bëri donc lu may wax vraiment ci entreprise mooy ñu xam ni que c'est un changement mm-hmm. de culture mm-hmm. ça ne se fait pas du jour au lendemain. Okay. mais les méthodes méthodes yi fi nekk mën nañ ko utiliser tout de suite da ngay wu nga commencé appliquer mooy comme Scrum euh, Kanban tamit ñëpp mën nañ ko utiliser ci lépp donc jarul kii da nga am objectif rek nga xam ne lii moyen la pour atteindre sa objectif te nga joxewu les moyens pour dem ok voilà ça c'est cool alors donc soo leen bëggee plus d'informations euh, mën ngeen euh, voilà mën ngeen dem ci internet bi def ay recherches et je pense que ci euh, description podcast bi sax dinañ joxe ay quelques liens alors su fekkee Mansour am nga ay quelques liens yoo mën a suggérer aussi auditeurs yi boo ñu ko envoyé mun nañ ko def ci mm-hmm. description podcast bi comme ça nit ñi euh, dem def ci ay recherches pour xool ko ñeme ko c'est-à-dire culture la rek comme ni nga waxee culture la boo xamante ni mm-hmm. boo ko appliqué boo ko amee boo koy dund tu seras beaucoup plus à l'aise mais tu seras aussi beaucoup plus euh, productif maanaam da ngay gën a da ngay gën a voilà da ngay gën a mën a produire lu baax gën a mën a produire rapidement euh, atteindre aussi say objectifs donc loolu c'est extraordinaire alors Mansour ñoo ngi ci fin épisode bi lan moo nekk sa mot de la fin. Ah, mo mot de la fin vraiment gërëm la gërëm la. Mhm. tegal nga ma challenge tey parce que. musu mon wax ci affaire agilité ci. Ah, ah, en tout cas en tout cas ni ñu ko expliqué c'est très clair et en plus li ma gën a apprécié ci intervention yi c'est très posé. voilà tu expliques clairement et c'est très posé nit ñi dañuy comprendre normalement voilà mhm. comme man mi nga xamante ni ñu <laughs> man comprendre naa rek xam naa ne dañ comprendre. dëggal dëggal. <laughs> ça c'est sûr. macha allah non vraiment vraiment vraiment remercier la. Mhm. ci invitation bi ni ma ni ma contacter spontanément aussi vraiment. Mhm. Euh, di la di la jaajëfal bu baax di la di la ci liggéey bi tamit. Mhm. Euh, fu mu toll dañ nekk jamono partage la. donc vraiment euh, référence ngay doon. référence nga te référence ngay doon aussi continuer ci ci ci domaine bi donc yàlla na ci yàlla taxaw. di la gërëm di la sant vraiment mooy sama dernier mot là-dessus. merci merci alors ñun ñu gërëm bu baax. baax ñu ngi lay gërëm di la sant di remercier encore bu baax ci li nga accepté déjà ñoo partager ak ñun sax xam-xam et j'espère que dina jëriñ auditeurs yi yépp bu baax a baax a baax donc ñu ngi leen di jox rendez-vous sur Twitter Facebook Instagram LinkedIn pour seeni commentaires seeni suggestions mais aussi seeni questions ci épisode bi nga xamante ni def nañ ko tey ci épisode bi incha allah dinañ fa euh, bàyyi mais attends euh, Mansour la fa lañ la mën a fekk sur les réseaux sociaux parce que c'est sûr que ne après gars ils viennent le bëgg contacter pour c'est sûr que dañ la contacter pour ay formation wala ay yu demee tu vois fan lañ la mën eh, eh. exactement sur les réseaux sociaux alors man mangi mangi mangi mangi LinkedIn mom à coup sûr assez réactif aussi sur LinkedIn ok euh, donc pour chercher, euh, Mahmoud Mansour Dramé di nga ma sinon Twitter aussi Mangiti. ngi Euh, bon Twitter Mansour rek la def. mais voilà LinkedIn Twitter il faut laa gën a actif. Euh, en général bon Facebook dama ko abandonné depuis quelques années <laughs> mais mais sinon voilà. Ah, vraiment LinkedIn Twitter Facebook bu Zuckerberg nga abandonné quoi. Non, Facebook, Facebook, bon, c'est Facebook, c'est une longue histoire. C'est que, euh, en fait, France, là, j'ai une, j'ai passé beaucoup de temps sur Facebook quand j'étais en France, il y a une activité du Mais, puis, me revenir vraiment, fille, ouais. Euh, au Sénégal, dal. Moi, moi, j'ai ba nga xam ni, <laughs> ma di xaaral, Facebook, dal, bàyyi ma def nii. Concentré rek fay, parce que, ouais waaw finalement daal dafa bëri quoi. donc non non c'est sûr man man j'ai abandonné Facebook pendant ay ans ans je pense mos naa ko tëj pendant 45 ans Je ans j'ai pas mhm. touché. bon mais après bi ma commencé waatee podcast yi ak activités yi laa ko door a réactiver voilà pour partager affaire Philippe, quoi mais c'est hyper cool. Mhm. alors donc franchement remercier les de bu Nous euh, ñu ngi rendez-vous auditeurs yi aussi ci beneen semaine ci beneen épisode dès leen aussi prenez soin de vous et de vos familles parce que c'est très très très important ci période bi période Covid 19 nañu jël suñu bopp bu baax en charge respecter mesures barrières yi euh, parce que voilà dañuy ñaan rek te te di ñaan lu bëri nag parce que euh, voilà am na yu bëri yoo xamante ni ñaan moo la ci mën a di ñaan yàlla aar ñu ñëpp voilà allez merci beaucoup rendez-vous semaine prochaine allez ciao